salaamaaleykum mbokki Leewtoo TV ñu ngi leen di nuyu bu baax ñu ngi tey fii ñëw seet si champion bu mag fii ci parcelle euh, unité 7 plus précisément euh, champion bi ñu ngi ko fekk fii ci salle bi Ibou njaay ñu gën ko xam ci ëbb li ñu ngi lay nuyu waaw maa ngay fay ginnaaw bu ñu sante yàlla ñu ngi jógu si yonente bi di sant suñu ñaari waajur bu baax waaw di sant Serigne Touba sant hmm. eh, doole sant sëñ Touba di jaale Sénégal gi yëpp rek lu ñu bokk muy sëñ Cheikh Béthio Thioune ñu ngi koy jaale yàgg maar di ko jaale mboolem internetu Leewtoo TV yëpp di ko ñaanal yàlla yërëm ko taxaari ko àjjana yu gën a kawe. Ibou njaay ngay mbër eh, rawatina ñu gën laa xam ci lutte simple géej laa gis tuuti Adrien Senghor da nga ñëw. feeñ demaat na lan moo xew foo nekkoon waaw dara xew ginnaaw maa ngi nuyu yéen ñi ñëpp waaw maa ngi nuyu bu baax a baax di nuyu waa parcelle fii ma nga xamante ne fi waa yeewoo waa parcelle 1 ba 26 maa ngi leen di nuyu di nuyu suma waa koñ bu baax a baax waaw ndax dañuy sonn si man di nuyu waa saag bi may entraîné tamit waaw di nuyu sama mbokku mbër yëpp waaw suñu sama doom nday Odinga mi waaw ak ñoom Begende gaa yëpp xam nga di nuyu suñu grand Modou ak Garga Mbossé di nuyu waa parcelle yëpp di nuyu suma waa koñ bu baax a baax baax baax parce que aw ma seen fay dañuy sonn si man ak sama booy yëpp maa ngi leen nuyu ñoom ñëpp di gën gërëm waa di nuyu tamit xam nga suma waa dëkk waa Joof yoor maa ngi di sant bu baax di gën gërëm di leen nuyu bu baax a baax a baax a waaw. lan raar bi. raaruma sax raaruma yéen kay xam ngeen ne man maa ngi si. maa ngi si àgg bi rek raaruma de raaruma de wax dëgg yàlla raaruma parce que xam nga rek ñun dafa am ay mag yoo xamante ne nii ñoo nekk suñu ginnaaw xam nga di ñu jàppale waaw bu bëree bu bu gàmmu amee ñoom bu ñu gisee ne war nañ mën a dem rek ñu ne ñu dem leen waaw bu ñu gisee bu ñu gisee ne nag si àgg bi la ñu war a dem rek ñu dem si àgg bi parce que ñu ngi sant yàlla bu baax defe naa ne ren moom gi ñu jël say drapo amu mbër bi ko jël li ne si àgg bi yëpp yàlla def na ne xam nga. ñoo ngi siy sant quoi bu baax a baax a baax waaw ren moom jël naa 17 waaw am naa 17 drapeau waaw jël naa 17 tournois waaw defe naa général Magick ga gars yi di wax ne moom moo topp ci man waaw moo topp ci man mais man maa ëpp lu ma jël say drapeau ren si àgg bi waaw waaw amul lu ñu tegul si àgg bi boo xamante ne nii jël naa ko waaw. Eh, mais ñëwee lamb ji xumb. ba yegg ci lool rawatina boo dajee ak yenn adversaires yi foofu fekk nag nga bindu ñu bindu euh, loolu la lan la lu xew. waaw affaire yi moom xam nga ñu ñoo booku game bi ñoo booku xam nga ñu ñoo bokku ñu ñëpp te nekk benn génération te xam nga te mënu yomb moo tax amateurs yi buñ ñu gëjee gis nii dañuy namm comprendre nga ba xam nga dañ dañ mere sax parce que tey xam nga ne tey làmb ju Ibou Ndiaye wàcc xam nga yeneen gars yi wàcc fa ku si mel ni sama gars yi ñoom rek joon ñoom rëg-rëg ñoom xam nga ñoom Cheikh Tidiane ñaaw ak gars yooyu yëpp xam nga di leen nuyu au passage surtout rek joon waaw ak ñoom Cheikh Tidiane ñaaw yeneen champion yi nga xam te ne ren yëpp gis nga seen saison nu mu demee waaw di leen wax ñu préparé waat xam nga gën a ñëwaat te xam ne dañoo bokk si affaire yi di leen ñaanal xam nga ñu nekk si jàmm ba li leen téye daal xam nga ñu mun a ñëwaat parce que ñoom dañoo bokk si ñun waaw xam nga ne ñun moom fu ñu fu ñu fu ñu tasee rek affaire yi mënu yomb moo tax gis nga bu ñu tasee Adrien Senghor moom affaire yi day mel ni waaw làmb ji day jaxasoo trop trop trop waaw mais ñu koy sante yàgg rek waaw di sant bu baax. boo ñëwee bindoo mu mel ni am na yenn amateurs yi koy gisee feneen ba boo feccee sax ñu yuuxoo la. waaw comme xam nga des fois comme am na ñaari weekend yoo xamante ne ñëwuma woon waaw. après si la benn mbër ñëwoon waaw. xanaa da nga koo ragal. non ragal yow man ragaluma mbër ba tey may door a ragal musuma doon ragal man doomu séeréer laa non ragaluma ko sax xam nga rek moom day toog si télé bi du wax day day day day caméra yi dañ koy tiim xam nga muy wax yenn wax yi mais xam nga loolu yëpp animé garaaw amu programme waaw mais xam nga saison bi dafa ubbi ñu nekk si compétition yi waaw man maa njëkk a ubbi. saison Diouroup lamb ji njëkk am bu saison ubbee ma jël ko yeneen lamb yi si du ndangaan du Fimela du Boyaar du e, Njaafat saagum bi moom lamb yi ñu fa teg yëpp maa ko jël comprendre nga mais nag xam nga am ñaari weekend yoo xamante ne barki Seydina Mouhamed barki Serigne Touba néew ma woon sax dakaar maa ngi woon Casamance kon daal ñu xam ne li may yooyu yëpp maa ngi woon Casamance xam nga bi ma bi ma bi ma ñëwee. E, tommeel benn dimanche ma dem Adrien Senghor seetaani waaw bi ma demee seetaani nag xam nga gars yi am sama deret tàng ma dugg si biir supporter amateur yi di yuuxoo xam nga di yuuxoo mais ma comprendre ne xam nga ñoom xam nga comme li ma jot a def si saison bi xam nga ak euh, sawaay bi mu wàcc see xam nga bëgg nañ ku gën ko fi jëlee quoi ku ko fi jëlee comprendre nga mais nag xam nga amul programme parce que ñu ñëpp ñoo far yàgg-yàgg dañuy daje ñu ñoo bokk game bi comprendre nga te mënante wuñu suñu biir waaw tey da daan sa moroom suba mu daan affaire bi noonu kese la waaw fii moom mbër bu nga ne maa mun ñëpp wala maa mun diw tey nax boppam parce que mbër moo daan dimanche tey bi xaar ko dimanche bii di ñëw bu dee borom jom day fayu waaw ñun moom suñu biir noonu la mhm. mbër boobu nga kay ñëpp xam nañ ko Ibou Ndiaye kay mbër mi muy jaayanteeg si biir lutte simple bi kay ñëpp xam nañ ko. waaw di di di xam di xama di xamal nit yëpp ne waaw incha allah bi xam nga dafa am benn affaire bu am ñun ñun nit simple la ñu xamee mais bu ñu waxantee dëgg ñun ay produit bëri door lañ comprendre nga te suñu combat dafa am combat yoo xamante ne ni ñu ngi feeñ sax si euh, lutte simple bi bu ko gaa yi tëggoon Iba Mar gis doy waar barki Serigne Touba comme gars yi nanguwuñ ñoo jël kay ñun nañ bëri suñu biir. ñun ñu fay daje. non xam nga ne. non ñamewu ma. non non du question de ma ñàkk. non du question de ma ñàkk ñame. xam nga man doomu parce ga doomu Diofior ga doomu Séeréer ga aw ma gu may tiit aw ma gu may ragal mais xam nga dafa doon dafa doon par respect quoi xam nga parce que nit yi da ngay wax ñu yóbbu waaw mais ñun moom suñu biir. xamante nañ bu baax ku ne xam na sa morom gu muy saf te dafa am combat yoo xamante ne nii gars yi dañu war a fexe public wu simple bi dañoo war a am combat yoo xamante ne am na xeetu tournoi quatre favoris yoo xamante ne bu ñu ko fi tegoon kon gars yi gisu garaaw kon mbër yi wàcc ci lutte simple bi amul kenn koo xam ne dañ la koy jox avance am ngay wax suba tey ëllëg non gars yi xalaatuñ ko sax gars yi wàcc ci si lutte simple bi yëpp kuñ ma si jox avance am waaw pour pour nga ragal wax ji rek diggante euh, Gris 2 ak rëg-rëg ku ci daan ak ku ci daanu man pare naa te jour boobu dinaa dem stade samp sama dënn pare naa pour bëreeg yow waaw diggante ñaar ñooñu ku si pare pare naa ñaar ñooñu rek nag instant bii nii sama bët si ñaar ñooñu nga ne parce que foofu laa bokk si gaam game boobu laa bokk amul dara guñ ëpp ëppage barki Serigne Touba. parce que fii nii may yeewoo su ma jugee waa parce que dañuy jóg waaw te dafa am benn kilifa bu mag bu nekk suma ginaar muy ministre Amadou Ba waaw di suñu père di suñu papa di sonn si man di ma jàppale waaw daf may naan utal combat nga indi ma billet yëpp ma jënd ko comprend nga waaw parce que xam nga waa parce que dañoo yaakaar waaw di nuyu nag suma waa écurie bu baax suma paa yi ñoom paasañ xam nga di nuyu gars yi ma bokk ak écurie bi ñoom franc xam nga parce que dafa am ay produits yu garaaw champion d'Afrique mu ngi fi muy franc waaw comprendre nga Olinga mii nii xam nga amul lu mu defu équipe nationale comprendre nga kon ñun parce que dañoo am ay produits yu graaw yoo xamante ne nii waa parce que dañu war a jàppale bu baax a baax a baax te xam ne ay champion ñoo fi yeewoo ñun bu ñu dëkkoon yeneen côté yi kenn waxatu ko mais parce que nañu génn ñu jàppale ñu ñun seeni doom gañ parce que ay champion ñoo fi ne waaw ñaar ñooñu ku si daan ah, Gris 2 ak Reug Reug ñaar ñooñu ko ci daan man Ibou Ndiaye soxla naa ko waaw. loolu na Ibou Ndiaye euh, boo duggee ci làmb simple bi saa boo duggee ci làmb am na ñoo xam ne saa bu ñu bindoo rek sa fit day na tëf. sama fit day na tëf. non man duma ma tiit gaañ ah tamit nag su ma naree tiit séeréer dañ ma. xuus nga fi xuus nga daw keneen daw du ma tudd tur yow di ñem yow yaa ngi ni yaay mbër ñemoo tudd waaw xuus naa daw mbër xuus daw waaw mais affaire yi xam nga rek yaa ma gën a xam ñun dafa am ñu nekk suñu ginnaaw ñoo xamante ne boo naree réagir si biir kii bi sax xam nga dañ koy dóor waaj ñi waaj ñi xam nga wàññi affaire yi waaw wàññi affaire yi di nga wàññi si biir si biir si biir bi dafa am ay mag yoo xamante ne nii xam nga mun nañ toog sax suñu ginnaaw ci mbukaay mais bu ñuy sotteeku biteel dañ leen di xool waaw ñoom dañ dañuy wax ak yow si biir bët waaw parce que nee nañ kuy kuy kuy yoddu sëqët waaw mais yàlla baax na Eh, Ibou Ndiaye benn question bi mooy mujjee rek nday Kumba mooy ana moo la gën a naqari ci làmb ji. waaw instant bii nii moom xam nga dafa am benn affaire boo xamante ne nii tey xam nga ñun dafa am produit yoo xamante ne nii tey ñu ngi fii si làmb bi te surtout lu mel ni lutte simple waaw. sawaay nañ waxante dëgg ku bëgg a gis bëre bëre bu tax ñu naan bëre ku bëgg a gis ay mbër dëgg dëgg dëgg bëgg gis bëre pur bëre bu tax ñu naan bëre ah non mu ngi si simple bi nañ waxante dëgg quoi xam nga gars yi nañ bàyyi benn affaire quoi koo si ne avance diw mu naan non kooku mbëru simple la fii kan mooy mbëru simple ak ñu dañuy jàng bëre rek simple bi dañ bëre di mbapat di gën a yokk suñu xam-xam comprendre nga mais ñun suñu bët ñu ko teg si bëre dóor bi waaw bu caaxaan jeexee wóor na Serigne Touba Mbacke bëre dóor bi si kanam nga ñuy comprendre waaw mais ñun amuñu lu ñuy tiit amuñu lu ñuy ragal ay doomu séeréer la ñu xam nekk doomu parcelle juddoo fi parcelle yaroo fi màggee fi di nuyu suma waa dëkk bu baax waa Diofior di nuyu xam nga sama booy mbër yi fa nekk yëpp ñoom Doudou Sané waaw champion Doudou xam nga ko xam nga di nuyu Babou saar sama booy yi nekk foofu yëpp nekk suma ginnaaw. waaw maa ngi leen di sant ñoom ñëpp di leen gërëm quoi di nuyu suma nijaay Mamadou Jon waaw ak Buuba Jombo xam nga di nuyu ñooñu dañuy sonn si man waaw dañuy sonn si man bu baax a baax a baax ma aw ma fayam waaw day sonn si man bu baax a baax aw ma fayam wax dëgg yàlla waaw. jeexale mooy lan moo waral turu Obali bi ndax des fois ñu ne Ibou Ndiaye Diofior des fois ñu ne Obali beneen question mooy drapeau chef de l'État tout juste après koor gi dina am donc est-ce que am na ay région yu la contacter te te jii soo doon dem si ban région ngay dem. waaw instant bii nii moom ñun ñu ngi si entraînement yi nii ak koor gi nii xam nga waaw drapeau chef de l'État bi waaw après après koor gi waaw mais instant bii nii moom xam nga euh, amagu région yu ñu contacté waaw mais xam naa ne gars yi dinañ dinañ ñëw quoi parce que bu dee mbër mu ëpp drapeau rek ak mbër mu gën a compétir saison ren bi foog naa ne mbër gënumaa compétir dakaar nag benn yoon ngaa fi wàcc te Dakar boo xoogee xam nga mooy boobu waaw benn mise bu mag lañ fi teg tegagum muy 3 millions yi passé yi franc jël waaw mais xam nga euh, instant boobu noonu dafa am nu mu demee comprendre nga dama gaañu woon si loxo mais instant bii nii nii nii nii nii moom gars yi bu ñu paree pour drapeau chef de l'État bi incha allahu xam nga dinañ si dem compétir si rek amul benn programme. ah. ndax pare naa pour waa Dakar waaw mais waa Dakar bu ma seet si wee rek man pare naa pour ñëpp. Dakar ak Fatick ñëpp parce que man bëri mooy suma métier man pour man jour bu ma toog wala dimanche bu ma toog bëriwu maa ngi perte parce que man xam nga euh, sama teraanga tey si bëre kese nga mun a jóge moo tax fooyewu ma ko caaxaanewu ma ko waaw turu bëgg bi moom mooy doy na daal parce que loolu yàgg na trop yàgg na trop depuis bi may nekk booy bu ndaw waaw yàgg na trop mais dama ne woon nag du ma ci wax su ma demee ba nekk champion si laa expliqué seen boobu noonu nu mu demee te incha allahu yi day am waaw moo tax gaa yi naan ibu Ibou Ndiaye Diofior Ibou joof Diofior Obogi mais waa Parcelles moom bu dee côté Dakar bi moom wax dëgg yàlla Obogi lañ gën a xam mais bu nekkee côté village dëkk ba ak yooyu ñoom Ibou Ndiaye lañ xam ko waaw. ci ci surtout ci mbër yu ndaw yi di leen daan ay daan yu doy waar ah, ay amateur naan kii dafa soxor bu bëgg nga expliquer ma loolu pour lan dangay ngay xëcc nit ñi ci yow wala xam nga ah ok non xam nga demee fa noonu sax du soxoor sax parce que ñun ñëpp xam nga ay ay ay ay adversaire lañ te mbër yi takk ngemb yëpp ku si nekk da nga ñëw pour euh, utuwoo dimbalee sa waajur waaw mais xam nga rek bërëb bi des fois mooy laaj des fois mbër yegg action boo xamante ne nii xam nga te ñun poids yi tey wala favori yi tey dañ toog foo xamante ne si bëri dafa doy waar xam nga boo xawee wone benn ñàkk fayda rek bu mbër bu ndaw daanee day am nu muy demee waaw moo tax xam na des fois boo taseeg benn booy xam nga du ma ne sax booy parce que magu ma leen mais boo taseeg benn mbëru kii xam nga da ngay da ngay da ngay da ngay concentré wu xam nga wan ko fuga ak fayda ak jom parce que am na benn ñàkk fayda boo xam te ne boo ko wonee rek day doy waar moo tax xam nga mais soxor sax ni may daanee noonu yenn gars yi xam nga daanee naa ko ay mbër yu bëri mais euh, du soxor quoi parce que xam nga wax dëgg yàlla bëgguma sax ñuy waxu soxor parce que ñun ñëpp ñoo far et nga man jëguma intention pour ñëw takk su ma ngeem bu ñëw di gaañ doomu jàmbur waaw mais xam nga wër bu ma si mus daan daan boo xamante ne nii tey xam nga métti na metti na nga trop maa ngay jégalu te xam ne sport ga rek mais du question de dama dama kii quoi dama soxor waaw. Odinga ñaari mots. <laughs> waa di sant rek xam nga di leen sant bu baax di leen gërëm. oui di xamal di leen xamal yéen a ngi dundal làmb bu baax baax a baax nuyu naa waa parcelle ñëpp nag 1 ba 26 xam nga nuyu waa Mbour waa Fadial ñëpp ñi may jàppale daal suma waa dëkk Ndingler maa ngi gërëm ñëpp sant ñëpp affaire yi moom noonu la rek ñun ñëpp ay sportif lañ xamante nañ suñu biir ñu ñëpp ay champion lañ xam nga gën a lu yokku te xam ne bëre daal nekkul lu yomb quoi. waaw simna ufaguge séeréer fop mexe simna den waaw ziare a den a paax a paax a paax waaw yaakaara den tamit yaakaara Diofior fo xa bii den waaw simna fop waaw di nuyu suma waa koñ bu baax suma maire koñ bi xam nga ñoom Tane Fatim ñoom Binta mbay ñoom Fëri suma grand Xalifa Gueye wiisi waa di nuyu suma booy yëpp xam nga ñoom Badara Sissoko Faagu Gueye xam nga gaas di nuyu suma waa koñ bu baax a baax a baax wax dëgg yàlla dañuy sonn si man su ma amee combat ñëpp ay jóg di sonn si man xam nga di nuyu suma waa famille sama waa famille Diofior waa di nuyu waa Diofior bu baax a baax di nuyu suma maam bu jigéen bu baax ay sa fay say yaamaan xam nga di nuyu suma nijaay Duudu Coor France Cheikh saat bu Coor di nuyu Baabu Ndiaye suma doom ndey suma chauffeur waaw di nuyu ñëpp xam nga di nuyu gaa yëpp di nuyu fans club Ibou njaay di nuyu ñoom Kangu ba Maroc xam nga Kangu jàngar maa ngi nuyu suma grand jame ñoom grand Jogo di nuyu suma mag bu ma bokkal ndey ak baay mu doon bëre bàyyi bëre muy Ambroise waaw maa ngi koy nuyu bu baax di ko sant di ko gërëm parce que tey bu ma demee ba nekk mbër tey moom moo ma def mbër moom nga ñu tuddee euh, père Ambroise Sarr waaw di suma mag xam nga tey su ma demee ba bëgg bëre tey di bëre Ambroise tax na ko quoi maa ngi koy sant bu baax di ko gërëm parce que mooy sonn si man guddi ak bëccëg di xuloo man di xeex ak man ndax bëre waaw te mais dama koy comprendre rek te xam ne daf ma bëgg rek te yàgg rek tax di nuyu ñëpp di nuyu suma waa koñ joof yor waa Sikaab bu baax a baax a baax di nuyu waa Sikaab bu baax aw ma seen fay di nuyu xam nga monsieur le maire Youssou Diom waaw di nuyu autorités yi nekk si kaam ñoom Moussa Fandeb ñoom Ami Moussa ñëpp maa ngi sant ñëpp di nuyu nag am kenn ku may nuyu muy yaa Mbayang waaw Mbayang Loum xam nga dafa nekk suma yaay xam nga vraiment nekk nit ku baax di sonn si man waaw maa ngi koy sant bu baax di ko gërëm wax dëgg yàlla aw ma fayam waaw. mu ngi ngi leen di eh, bu baax a baax ànd ak suñu équipe yi vraiment. sama chauffeur professionnel bi moom maa ngi koy nii bu baax a baax ndey kumba faal njagayaaram hmm? wala faal ma déggin dem ba nu ma ko bëggee ren ko jëlee xam nga moom euh, sama naar bi nuyu naa bu baax Rose la fleur nuyu nañ baax a baax la ñaanal jàmm waaye yàgg maar encore une fois di la jaale lu nu bokk di nuyu mbokki Leewtoo TV ñu ngi tey fii ci parcelle seet si woon champion bi di Ibou Ndiaye ëbbali <laughs> jógee suma combat man ak moom daf ma jégal eh. suñu dajee dafa garaaw